asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu te dañu seetaan ñu ngi fii ci kër Serigne Cheikh Ndigal Fall baay Góor ci ndogu yi nga xam ne mbooleem waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Mouridina ginnaaw bu nu séentoo weer yi ba gis ko ñoom ñëpp dañuy àndandoo kenn ku nekk di ci liggéey liggéey bu am solo muy togg ay ndogu di ko yóbbul Serigne Touba. ki fi nekkal Serigne Touba di Serigne Cheikh Sidi Moukhtar Mbacke xalifa général kullu murit ak mboolem rek waa kër Serigne Touba noonu ñu ko baaxoo def nag bis bu yàlla sàkk di ci ànd ak télévision Lamp Fall FM ak serafall point com ak rajo Touba Fall benn fanu koor ba fukki ba ñaar fukki fan ak juróom-ñeent tey jii ñu ngi fii ci kër sëñ Cheikh Ndigal Fall ibnu sëñ Cheikh Fall Baye Góor bi nu ñëwee nag ñu ngi ñëw ci waañ wi gis nga yaakaar naa ne bu ngeen gisee. soxna yi ngeen xam ne ñu ngi nekk ci togg mi jamono bii nag léegi sax ñu toll ci waaj a sottal ngir góor yàlla yi mën a jóg nag yëkkati turu yàlla wi yenu xéewal yi ngir fas yéene koo yóbbu daar xudóos sëriñ baa ngi ci biir xam naa ci kanam tuuti danañu seq ak ab jataay sëriñ bi incha allah soxna maam say lañ jox mu daal di wax li nga xam ne noonu lañuy liggéey liggéey bu sell bi fii ci waañu kër borom digal faal soxna maam kon bisimilah. asalaamaaleykum ñoo ngi fii ci kër Serigne Cheikh Ndigal Fall ni ñu liggéey liggéey bi moom ñoo ngi ko def ñoo ngi koy ànd moom ni ko suñu waajur yi daan ànd ak waajuram rek bu weeru koor jotee ñu bàyyi lépp lu ñu jàppoon ñu bàyyi lépp lu ñu jàppoon bàyyi lépp lu suñu itte itte sëñ bi suñu itte rek ñu ànd ak moom fas yéene liggéey liggéey bi ni mu ko bëggee ni mu ko bëggee ñu di ko def bu ñu xëyee ñoo ngi ci liggéey bi ñoo ngi ci defar ndawal gi ñoo ngi ngi ci defal pomiteer bi ñoo ci defal pomiteer bi fas yéene ko sellal ba mu sell rek jëm ak moom ni ko sëñ bi bëggee di liggéey ànd ak koo xam ne nag mooy suñ bunt ci Seex Ibra muy suñ Seex Ndigal faal du koo xam ne ni ku neex a liggéeyal la ndax boo àndeek jàmbaar jàmbaar yi sëriñ Touba mu di mu di taalibe te nangu ko nga xam ne léppam liggéeyal sëñ Touba moo ko ñor léppam ak taalibe moo ko ñor suñu waajur yi àndoon ko moom moom ci ak waajuram la noonu rek lañ ko àndeek moom fas yéene ànd ak moom weeru koor wi jeex mu ànd ak rakkam yëpp nag képp ku mu bokkal sëñ Cheikh Fall Baye góor liggéey bi sëñ Cheikh ndigal di liggéeyal baayam bu sëñ Cheikh Fall Baye góor dellusi woon jamono du soppi toogaay sëñ Cheikh Fall Baye góor bu dellusi woon jamono sëñ Cheikh ndigal du bank tànk mi ngi ànd ak ay rakkam ñu mu bokkal sëñ Cheikh Fall Baye góor yëpp ñu mobilisé te liggéey bi muy liggéeyal sëñ Touba ku ne gis na ci sa bopp ñun taalibe yi gis nañ ci suñu bopp képp ku mu maaseel jamono képp ku mu bokkal Cheikh Ibrahima Fall gis nga sa bopp loolu daal foofu la ñuy tàmbalee ba ci kanam Euh, jërëjëf mbokk yi nga xam ne ba tey yéen a ngi déglu te duñu seetaan dégg nga soxna maam say kàddu yu am solo yi nga xam ne mi ngi ko doon leeral euh, di ko yëkkati fii ci waañu kër borom digal ba tey ñu ngi feggoo ak euh, sunu yaay moom it yaa sunu yaay soxna Fatim koo gis moom it xam ne bokk na ci mag ñi soxna gis nañ ne waañu boo fi duggee la danañu fi fekk jàmm ak salaam li nga xam ne ni mooy li nga xam ne mooy njëkk muy jàmm ak salaam yaakaar naa a xéwal gu ñuy toggee kër maam sell ak set ak euh, jàmm ak salaam te loolu lépp nag gis nañ ko fi kon boo ko defee dañ lay bàyyi rek su ko defee nga leeral mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan tey déglu liggéey bi yéen it fii rek ni ngeen koy liggéeyee ak it jamono bu nekk saa su nekk ni nga xam ne yéen soxna yi noonu ngeen di ànd ci waaj wi mm, sëriñ bi ni mu leen ko digale noonu ngeen koy euh, jëfe ba sëriñ bi xolam sedd kon xam naa dañ lay bàyyi rek nga ànd ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan bisimilah. salaamaaleykum ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di sant Serigne Touba di sant Cheikh Ibra di sant sëñ Mor Moussa Fall di sant sëñ Cheikh Fall borom di borom digal mi nga xam ni ku kuy wut lislaam boo ñëwee ci moom doo sonn doo dàcc doo tàyyi ndax moom lislaam rek a ko ñor ak taalibe rek a ko ñor jëf rek a ko ñor ba tudd Cheikh Fall borom digal ñuy sant nag bi ñu juddoo fii ci kër sëñ Cheikh Fall baay góor yaroo fi lu lu liggéeyal sëriñ bi nu lu dul sëñ bi sant eh, lu ñu liggéey bañ def ko ñoo ngi sant ndax lii ñu def nii sunu maam yi lañ ko àndaloon ak sunuy mamaar sunuy ndey sunuy baay di ko def sëñ bi ñëw teg nu fii fii nga may wax loo ni mooy daara ju ndaw ji ma nga ne ku tarbiyee sëñ baay Fall góor ci nga bokk ku ci sëñ Cheikh ndigal wàcc sa soxna ci nga bokk ñu di taalu bi fas yéene takk suñu ndigg ba mu dëgër di déglu ndigal di bàyyi tere ñoo ngi ñaan sëriñ bi yàgg fi lool ba raamaan ñu ñu yàgg fi dara jël sëriñ Tuubaa seera fa euh, jërëjëf mbokk yi kon loolu moo doon kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko jële woon fii si waañ bi waañu borom digal Fall ibnu sëñ Cheikh Fall Baye Góor xam naa ci kanam tuuti incha allah dinañu dem ci sëñ bi seq ak moom benn jataay jërëjëf jëf you know, you know, now you know how Deus. Merhaba. billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalib yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala ñu ngi leen di nuy di leen ziare di leen fàttali ne tey ji la juróom-ñetti fan ci weeru koor ñoo ngi nekk fii ci kër Serigne Cheikh Ndigal faal Baye Góor ci Touba Paleen bi nu ñëwee nag gis nga ne nu ko baaxoo defe ci kër yi ci benn fan bi ba léegi bis bu set ñu dem ci genn kër buntu kër maam Cheikh Ibrahima bu yëngu ci wàllu ndog ñu ànd ak ñoom dem ca waañ wa waaye kilifa gi nga xam ne moo fi nekkal waajuram xalifa moom it ñu seq moom ab jataay mu leeral ñu ñu ngi toog ak sëriñ Cheikh Ndigal Fall ñu gën koo xam sëriñ Cheikh Roqee ñu gën koo xam ci sëriñ Ndigal Fall baay góor sëriñ bi xam naa ni nga ko waxee rek laaj bi moom ay laaj yu bari la doon at mu nekk rek laaj bi benn la euh, cosaanu ndogu ak njariñu ndogu ñetti laaj la ñu indi tey rek muy cosaanu ndogu ak njariñu ndogu asalaamaaleykum mina seytaane rajim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Baay Faal yi muy liggéey boo xam ne ma lañ koy wax muy ndogu muy ci sahru ramadan al muy loo xam la woo xam ni ci sëñ Touba jóge woon ñëw ci seex Ibrahima Fall ndigal la lu Baye Fall mii itam wax dëgg yàlla ndax loo xam ne ci Cheikh Ibrahima Fall la jóge woon ba tey daggul ku fi wutu sa kilifa ku nekk yaa ngay jéem a man sa kilifa ca lam doon def te yaakaar ca tuyaaba loolu mooy ndogu gaa yaa ngi koy firi nag fu nekk ku di wax lii ku ne wax nangam waaye jëf la joo xam ne daal sëñ Touba moo ko digaloon Cheikh Ibra bi muy nekk njaareem it la tàmbali liñ ci xam te loolu mi ngi entre diggante 1915 ak 1927 ndax sëñ bi mu ñëwee njaareem mi ngi fi ñëw 12 Cheikh ñëw fa 15 sëñ bi nelaw 27 Cheikh nelaw trente mu rawee ko ñetti at kon diggante boobu diggante quinze ak vingt sept mooy li nga xam ni ci la ndigal li nekkoon ñuy togg ay ñam di ko jëlee kër Cheikh jamono yooyu di ko yóbbu kër gu mag gannaaw bi ñu fekk nun suñu way jur Serigne Cheikh Fall Baye Bour daana fi toggee na ko fi njaareem toggee na ko fi Mbacke waaye mujj gi nag mi ngi ko toggee fii ñun li fekkee fii mu daa ko togg nag. Euh, booba ndabi ceeb moo xewoon fukki bool ak ñaar ak benn super ñu koy def euh, ay ganaar loolu lañ daje lool nag mag ñi ma xam ni sama wayjur doon na ko toggal Serigne Cheikh Mbacke ba mujjee ko ci Serigne Mbacke Madina loolu daal mooy li nga xam ni fekk naa ko ci toggum ndogu fii ci kër gi. Euh, kon sëriñ bi bu nu ñëwee ci ñaareel bi kon mooy njëriñul ndogu ginnaaw bi nga xamee ne togg ndogu. maam Cheikh Ibrahima Fall mi ngi ko jëlee woon ci ku tedd gi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul daan ko togg ba fekk sangam ba Serigne Modou Moustapha ba ci Serigne Cheikh Jëmu Fall ñi nga xam ne nag ñoom ñooy taalibe yi di laxasaayu di ànd ak yéen sangu su tedd si nga xam ne fu ñuy fu ngeen jëm rek ñu fas yéene ñaan yàlla ànd ak yéen nu ngeen ñu ko déggalee ñu defe ko noonu xam naa kon ci euh, nit ki buy jëfit léeg-léeg dina bëgg a xam lenn ca njariñ la xam naa njariñ loolu rek ci lañ bëgg mbokki taalibe bi gën cee mën a yaatu maanaam ni ñu koy sàkkoo nag aqida lay doon pas-pas maanaam booy jëf-jëf ji nga fas ni man kat jëf ji maa ngi ci ndax sëñ duy digal ni jëf jëpp dooy def te amoo ca e, yéene wala aqida pas-pas moo mm, wëñ goo xam ne kii da nga koy ñëw te mborosoo koy yem xam naa ñi xam mboros ñu bari bariwul waaye mooy façon cat la ba boo xëccee rek mu jàll ba tax na jëf ji moom jëf ju yaakaaru la ndax waxuma la dara maanaam jël aw ñam di ko lele ay nit waxantuma la ak sa yaakaar euh, loolu mooy li nga xam ni mooy liggéey bi euh, bokk na ci euh, li nga xam ni am nañ ci yaakaar ci wàllug Baay Faal gannaaw ñun am na ko baax noon li tuuti moo tax ak suñ digg ak kéefër ñu ne ko mooy lan mu ni ndigal kon luñ mën def ak ndigal lañ ci sàkku muy togg ndogu mii nga xam ni dañ koo bokk ci nga xam ne bu doon ay arkaan bokk na ci si nga xam ni suñ Euh, ponk yi nga xam ne moom lañ gën a rëyal ci yoonu Baye Fall ndax bu weer wi jub see ku ne danga xam ne ku di Baye Fall rek sa xel dana dem ci ni war na maa liggéey ci liggéey bii nga xam ni mooy ndog muy bitim réew muy bii biir biir réew mi ñi taalibe yi nag ku ci nekk yaag sa pas-pas yaa xam kii mën na ganaar wala kii man bëy bi man lu ëpp yooyu waaye ñoom daal euh, jaaraamaa ñoom wax dëgg yàlla ndax lu fi man di daje ñuy ñu koy tagg taalibe yi rek la wax dëgg yàlla sëriñ si ñoom damay wax ni lantinoor rek la dañoo war di jàllale lépp loo xam ni dañ ko ci téye warul waaye ñoo ngi jégalu yooyu nag nun di leen jégaluwaale ndax lantinoor bu téyeeg diw dañ ko war a fëgg-fëggal fottar ko ba tax na mooy yenn yi nga xam ni moo ci am tiis ndax dañ ñoo jàllaloo ku ñuy jàllaloo rek waroo téye dara waaye nag suñu borom moo soppi àdduna ba la ko mag ñi ragale woon ñun day ragale wuñ loon ndax mag ñi daanañ àgg ci seen toolub sëriñ sax buñ ko jeexaatee duñ ca lekk waxantuma laak li togg ndog li daawuñu nangoo mos xorom daawuñu woon nangoo def dara euh, jamono nag mooy yokk ba yi ci xew xew yëpp waaye sàkku tuyaaba dong moo ko tax a jóg. Euh, jërëjëf sëriñ bi xam naa laaj bu mujj bi rek mooy jamono bu nekk dañ koy laaj waaye toujours day ànd ak actualité day ànd ak liggéey bi muy bu nu déparé ba yenn ndab yi. góor yàlla jaar ci tëli bi dañuy dajeeg ñeneen ñoo xam ne ñoom it dañuy dox yeneen yitte su ko defee ñoom dañuy gis ne waruñoo wàcc tëli bi góor yàlla yi ñoom jàpp ne dañ ñoo war a man may ba ñu jàll ndax li nu yor su ko defee foofu léeg-léeg diggante boobu dina xaw am tuuti ak réero foofu it bëgg fi ab soññi sëriñ bi. ñooñu ñuy dox la wala ñuy yore oto. waa ñu yore oto yi ak sareet yi ak it ñoo xam ne nii xañ na dañuy dox seen yitte. waaw bu dee ci saa rek fulu fulu mbooloo bu nekk maanaam ñedul ful ba dañu ko war a eh, may mu jàll bu dee gréviste bu ñu séenee mbooloo mi dañ leen di may ñu jàll waxantuma laa loo xam ne ni da ngay tudd yàlla yanu sa ndab def tànki neen di dox ci naaj wi kooku bu ñu la ko waxuloon bu dul woon yoon it war ngaa dawal sa yërmande defal leen ko xam ni benn minute ngeen di weesolante mu daal di jeex am na ci yoo xam ne xol yi nag moom day dañuy rëbbante te loolu amul solo fii Touba la sàkku fi tuyaaba rek moo war waaye rëbbante fi warul man day dama daa wax ni képp ku ngeen dajal mu leen def loolu seen saytaane la na ngeen ko moytu war ko lem te xam ni saytaane la bëgg ko ku bëgg sa kuy wut lu baax nag doo da ngay daw saytaane. Hmm. Euh, jërëjëf sëriñ bi euh, laajoon nañ la ko daaw foofu la ñuy tëjaate sax ñu ngi jéggulu mooy euh, dégg naa benn ci reportage may def rek benn magum bi ci kër Baye faal yi mu wax ma ne Baye faal yi ne ci àll bi bu koor gi ñëwee na ñuy ñëw. ndax yónnee bi am na solo waaye bu fekkoon ñëpp dañoo yónnee kon bool yi lan moo ko yenu xam naa ne foofu. waaw loolu sax loolu àddina noon la ba ñuy tabax jumaa ji itam ñëpp mënuñoo yenu doj. adduna moo demee noonu ñii dañuy ngoy ci fii ñii ne ci lii waaye loolu lu siisement boo xam ne ni bu taxaw la ña ña xam ne dañoo mën a liggéey di joxe ñii dañuy jox nañu jaayidu amwaalikum bi amwaalikum wa anfusikum lañ wax wa anfusihim da ngeen di jaar ci seen bakkan wala ci seen deret moom ñi amul mooy tax ñu wax jaayidu bi amwaalikum wa eh, anfusihim bi eh, maanaam ñi ñi ñi amul xaalis mooy jaayidoo bi amwaalihim wa anfusihim wa anfusihim jooju mooy nga jël doj wala nga jël sa ñaq di ci def mooy comme gaa yi nga xam dañuy yenu di dox dem waaye nag am amwaalihim ji moom mooy ñi nga xam ni dañoo dem feneen di liggéey seenu ñaq la cay jëlee ñu def ko ci sëñ bi ñoo ñaar moom ñoo mas di ànd tool bi moom ku ci nekk di liggéey da nga gis koo xam ne kii daane fu sori def lu lu lu jege ci ki nga xam ne dafa jege mënul la nga xam ne la ko sori di def ba tax na loolu moom uh, mënta ñàkk daal ci ñii def lii ñii def lii ndax ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu tukki uh, ñi ngi yónnee seen ñaq ñii fi nekk itam xëy na am nañ ñaq sax waaye uh, am la ci ëpp mooy seenu ñaq waaye xëy na am am ba demewul noonu kon it ñoom it loolu la ñuy def waaye bu fekkee ni da ngeen dañ koo bëgg a siise foofu nii lépp bu ñëpp defee noom déedéet ndax boo ne lii bu ko ñëpp deful rek mu yàqu déedéet kon lu bari dana yàqu. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, jërëjëf eh, sama caméraman mi ngi may dey léegi ne ñi nga xam ne ñooy Baye Fall yi woor xam naa foofu bëgg nañ nga gën cee exciser ndax jotaay yu mel nii day xaw jafe te boo waxee ñu ci bëri ñu ngi koy bàyyi xel tey it dinañ ko dinañ ko dinañ ko bàyyi xel. Eh, Baay Faal yi nga xam ne dañuy woor fa nu nekk du joxe ndogu wala sax ñu yóbban ñu joxe ba pare continuer ko ak koor gi loolu it bëggoon nañ ñu gën ci am ak leeral sëriñ. ah aw ma ci leeral kan ndax man joxuma leen ci ndigal. Hmm. <laughs> Eh, jërëjëf jëf sëriñ eh, mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan tey déglu di seetaan télévision Lamp Fall di déglu rajo Touba Fall FM ak crfall point com ñu ngi toog ak sëriñ Cheikh Ndigal Fall tey jii di samedi juróom-ñetti fan ci weeru koor fii ci Touba kër Serigne Cheikh Fall Baye Góor te jëwriñ ji di Serigne Cheikh Roqay ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Ndigal Fall xam naa dañu koy jox bu ko defee mu tàggatoo boole ko loo xam ne bëggoon na koo waxaale occasion te laajuñu ko ko bisimilah Serigne. li ci def mooy sant yàlla rek ak ci liggéey bi waxtu bu nekk bañ ko tàmbalee léegi yàlla may nu mu ñëw gën a rafet mañ weesu loolu noo ngi sant yàlla di ci sant taalib yi nga xam ne moo ñoo tax ñuy jëf ñoo ñoo jàpp ci jëf ji. Euh, damay wax ni ñun ñii buñ nee mm, doomi sëriñ yi mën leen déedéet doomi taalibe yu mag yi lañ nañ delloo ci suñ bopp ni sunu jur yi nga xam ni ñoo sosoon lii ay taalibe yu mag lañ woon léeg-léeg nag ñu naan doomi seex si wala doomi déedéet doomi taalibe yu mag yi lañ doomi taalibe yu mag yi nag mooy sàkku la seen wayjur daa sàkku te di ko sellal tey moytu maa ngi moytuloo nit yi itam maanaam taq-taq yi nga xam ni warul wàllu sàngara wàllu tox yàmba wàllu tox ndax dañoo wax ni fukk lu euh, nit ku ne dafa war a roy ca ka nga xam ne nii da koy jiite te gannaaw gisuñu seeni kilifa di def loolu képp ku koy def nag danga ngaa weccax ni ko sa bakkan waaye du loo am ndigal euh, xëy na maandu dafa rafet rek ci yenn yi waaye mënoon nañoo tudd nag ni nangam waaye wax dëgg yàlla sellul ci ngay am ñam woo xam ne da koy togg ngir jëme ko sëñ Touba ñaari sax mag ñi dañ daa sell bu ñu jëmee ko sëñ bi dañ daa dañ daa jàpp. wala fekkee am toja ñu ñu ñu ñu ñu sangu yow nga tox wala nga naan wala nga tox leneen wàññi ko at di yëg di yóbbu mbir yi loolu itam mm, sellul. li ma ci gënalu daal koy def ku yóbbu ku ne da ngay sellal ànd ak tur yàlla wi. ba tax na suñ mbokk yi nga xam ne ñoom itam ay mbokki daaru xulóos mbokki mbokki dëkk bi lañ ni ñuy ñëwee itam dafay dafay neex léeg-léeg nit ñi di jàmbat waaye euh, dañuy wax ni li li metti ci xol mooy ay nit di la laaj si te yoroo ko te yàllaa ngi dogal luñ ma laaj si rek ma mi ngi ko fi fekk loolu laay gën a sant yàlla képp koo xam ne kii yaa ngi ñëw te yitte euh, li ma metti woon sama xol mooy ñu ñëw duñ ko fekk waaye wax dëgg yàlla ku fi ñëw ku ne la nga tollool yaa ngi koy fekk ñu ñu jox la lañ ci man mbir ci desit maa ngi ñaanit am na lu ma sosoo saa bopp loo xam ne itam maa ngi koy ñaan ci wàllu wér-gu-yaram ak am-am boo xam ne nii yàlla ma ci yàlla dimbali te dimbali ci taalib yi ndax li ëpp solo ci taalib yi te dàq ci moom mooy ab sëriñam sos ko mu man ko waaw fekk kooko xéwlu poos man day loolu moo moo ma gënal di rëccu nag yi nga xam ni weesu woon nañ ko ci warul xam ndax naa ni sàbbiyan wala kaana nabiyan loolu ñoo ngi ñaan yàlla euh, mu faxasal nu li ñuy dabuwaat ci mag ndax sëñ bi dadaa wax ni gudd fan baax na loolu ndax da ciy tooñ fayiku fayu ci mm-hmm. kon ba tax na yiñ ci tooñoon xam nañ ko suñu bopp ndax nit ku ne dañ ni moo gën a xam màndargam bakk ba ba bakkanam ba tax na ñoo ngi rëcc yooyu tey ñaan yàlla bu ñu dugal ci dugal ci yenn taq-taq te lu nu jiito jikkoo yu ne ñi ñu topp it ñoo ngi ñaan ñu jukke woo noonu ñoom itam tey rafetal tey bañ di yàq sëñ Bass kon jëlal ma ci ay kàddu yëpp ginnaaw ci dëkk bi nga dëkk te xam naa ni am nga ci xam-xam tuuti bisimilah. merci sëñ Bass. xam naa sëriñ bi euh, comme ñu ngi nekk ci dëkk bi li nga xam ne noonu la ko sang si defee saa bu koor gi ñëwee rek Baay Faal yi ñoom ñëpp kenn ku nekk def sa pasteef. loolu loolu loolu maa la ciy tontu maanaam nit ku ne nag ak sa tojinu janax la wolof di wax waaw ku nekk la nga gisee sa mbir rek ci saw yoon noonu ngay doxalee. bul yaakaar ni ki nga xam ni moo wax nii sax dafa gën a jub noona wala déedéet da ngay wax li nga li nga bëgg. waaye yàlla moo xam nag euh, ki ne ci yoon wala ko jub ba tax na teyit euh, yoon wi nag làmbatu la làmb làmbatu la rek. waaw ku ne da ngay nab na bi defe ni la nga nekk moo gën noonu yàqin gi moom euh, sëñ bee ko yor ak ak sunu boroom waaye nag li gën a rafet mooy maanaam euh, roy ci li nga xam ne mooy lu baax rek mm-hmm. waaw moom roy ci lu baax dafa gën roy ci loo xam ne nii baaxul waaye taxul nag nga ñu defe nii yaa gën kenn wala la nga wax moo ëppale kee déedéet man day jàppewuma bu ko noonu damay gis ni nit ku ne sab gis gi rek gannaaw jiite nga yow na nga xalaat rek ci ngay demee. Mm-hmm. Euh, man maa teewee ci ab jataay sëñ Bass Abdou Khadre euh, mu wax ne moom ci Baye Fall la ëpp yaakaar ne ne boppam. kon xam naa loolu doon loo xam ne Baye Fall yi yéen yéen ngi ci bay seen waar bu baax a baax loolu nga wax ni sëñ bas abdu Khadir moo wax ni moom ci la ëpp yaakaar waaw loolu gis-gisam la rek su ak ak bëggam Baye Fall ak dina ko soññee waaye taxul boo demoon feneen wax fa loolu it ñoom itam am na fa ko wax ni Cheikh Bass da bàmba ji moom li sëñ Basiir waxoon rek arjauha bi jawaaril aylamil alam ay keno moo wër yoo xam ne ñëw téye mbaar mi koo ci dal ci kawam suñ borom bu jógee man man laa daaneel te jo ak sëñ bi ay keno lañ rek boo demee fee Rijal nga fee boo demee fee sëñ Masamba Jóoba nga fee sëñ Touba moo organiser yoon wi ku nekk di ko li nag mbir mi waaye du caagi ni bu waxee loolu rek Baay Faal yi dañoo daal di gën wala déedéet da koo soññ Baye Fall rek na moom xam ne ku sëñ Abdou Khadir Diour boo ko ne woon tey nga doon Cheikh Roqoy du nangu <laughs> kon te man ku ma ne woon kaay ma ma doom sëñ Touba Diour ma ma daal di fecc ah kon nag <laughs> nan soññiwaat suñu bopp man noonu laa ko gisee wax góor waaw. <laughs> jërëjëf euh, sëriñ bi yaakaar naa ne euh, amoon nañu mbégte jotaay bi gën a yàgg lool waaye dañoo xamul fan la fan la yittee tollu sëñ bi mm-hmm. euh, waaye. xam naa rek am na yoo xam ne mi mi ngi ci mi mi ngi sonxal ndax kilifa yi léeg-léegi seen mbooloo rek la ñu war a digal wala ndigal loolu war na gën a yaatu ndax kenn ku nekk am nga ñoo xam ne ñoo topp ci sa ñoo topp sa ginnaaw ñuy wax waa kër diw ndax léeg-léegi eh, ndigal loolu ñoom rek lay concerné wala kilifa gi moom daa war a xool rek ñi nga xam ne ñëpp ay julli lañu rek ndigal li gën a jëm foofu dañuy gis toujours ci bëri rek ci eh, ndigal li day eh, gën a daj ci ci waa kër diw ci waa kër diw. xam nga lépp lañ naan lu yàgg dolliku lu yàgg soppiku waaye genn kenn rek moo fi ne woon nag léegi nag banqaas boobu nga xam ni car yi dafay fàqe mënuñoo dem ba mooy garab gi garab gi moom moo yor reenam mooy banqaas bi moo moo moo moo yor dàtt bi banqaas yi aju ci léegi nag sëñ Tuubaa moo yi ku nekk boole na laa koo xam ni kii sa ngëm-ngëm fa la nekk te it nattu na la ci ci moom ba nga defe ni moo gën ñëpp loolu moom mbirum sëñ Tuubaa la moo ko def ci di na bu doon loolu kenn du weesu ko sant Mbàkke waaye boo demee tey ci Baye Njenne am na tey ji maa ngi romb rek Njenne gis ñuy wax Mbay Ture la mu fa def xam nga kooku loo man di loo loo man di jaay te gisul sëñ te wanoo ko sëñ Isaa rek du ko gis hmm? ndax jumaa jéema romb mu def ko mu mel ni jumaay njaareem sëñ Tuubaa ja delloo si na maanaam payug sëñ Isaa ga nga xam ne sëñ Tuubaa da ko ne woon del wax rek ñuy def jumaa ji amul plan jumaa njaarim amul plan te loolu sa xelum sëñ Isaa la ko sëñ Tuubaa defoon muy rëdd kon xëy na yàlla moo ko feewaat taalibi bu ñëw ci moom defal ko lu mel noonu loolu lépp liggéeyub sëñ Tuubaa la waaye du du du leneen loo xam ne ni da nga naan kër gi damay digal kër gi rek euh, déedéet am na ñoo xam ne ñu ngi déglu lu baax te du seen sëriñ ñu koy ñu koy jëfe mhm. lu baax foo ko waxee ña baax daañ ko waaye du caagi ni danga naan maa ngi wax lu baax rek boo gisee ñuy def enchambelé sottante xel mooy ku ne da ngaa wuuteeg sa moroom xel léegi nag buñ dajee ku ne wax lii buñ seetee tib bi la ci gën a rafet ñu jëfandikoo ko. Mhm. jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon seetaan. xam naa ne dañoo bëgg a fekk góor yàlla sax ci kër ga ndax ñu mën a jël yëngu booba ci biir kër ga euh, loolu tax sax na kon jotaay dina gën a yàgg euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen fàttali rek ne tey ji la juróom-ñetti fan ci weeru koor di gaaw fii ci kër sëriñ Cheikh Roqee Fall euh, ibnu sëriñ Cheikh Fall Baye Góor jërëjën jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu la ilaha illallah ane fadde barka so jafa dayko